ñun moom lu ñu mettoon si wàllam farine bi mooy farine bi dafa cher pour l'instant pour ñu liggéey si ba génn si problème lay doon ndax saaku farine bu njëkk ñu ngi ko jëndee woon ay treize mille sept cent cinquante fan yi ñu dem yokk ñu ko dix sept mille francs ñu yokkaat si mille francs mille six muy dix huit mille six cent cinquante kon presque saaku bu ne ñu ngi si yokk quatre mille cinq cent te prix bi fi ñu ko fixé woon fa lañ ko fixé ba tey kenn yokku ko kenn wàññiw ko. ñu yokk ñu saako bi 4600 mille kan xam nga loolu dafa metti loolu mënu ci liggéey ba génn si liggéey pertement la ñuy liggéey te met kenn ku ne ñaanul yàlla di liggéey di perte dañoo yor ay employé bu weer dee dañ leen di fay di fay location en plus tamit taxi yi bëgg ñoo ray fii ndax da ngay fay impôt di fay mairie bi ñëw lu ne nga koy fay loolu dafa metti si ñun moo tax dañoo mënta dem moo tax ñu tëj suñuy four mais kenn kenn kenn bëggut di liggéey di teg sa four ngir grève ngir petit intérêt. manquement mburu bi moom lu metti la fii nii ndax parce que tey gars yi bañ xëyee amuñu mburu dañu obligé sax benn gaan moom indil pain au lait mais tamit pain ay avant midi jeex na non état moo war a wàññi kii nii taxi yi nag ak farine bi wàññi jàppale gars yi boulanger yi parce que instant moom population bi soxla nañ ko parce que tey moom bañ gars yi xëyee dañ doon kaas rek dañu wër nañ mburu ba sonn amuñu ko instant bi nañ obligé ay pain au la ñuy lekk wala dem jënd ay beñe ay fonde xam nga tamit Sénégal moom mburu lañ xam bu ñu xëyee lekk ñu mburu rek mooy loolu mais état moo ci war a jàpp nag wàññi kii ni farine bi boulanger yi tamit continuer seen liggéey xam nga sama mburu moom mooy loolu population moom duñu am seen dara. li ñu liggéey mu ñu see dem dañuy liggéey pour tenir rek mais see dem ay affaire dafa metti moo tax ñu tëj suñu fuur ñun ñëpp grève bi nag bàyyi ko ginnaaw état bi nu wàññut bi. wala mu yokk ñu prix mburu bi ñu ñun grève duñ ko mas a bàyyi dañ koy continuer bu jaras ñu tëj suñuy four jaay suñuy four seeti leneen benn métier dañ koy def mais pour l'instant moom ñu ngi si. teeluñu ko yëg nag xaw nañ koo guddee tuuti rek ci guddi gi yàqal nañu lu bëri ndax suñu doom yaa ngi ni tey am lu ñu ndékkee mburu lañu xam ñun amul lu lool ak suñu njaboot mënoon nañu avant ñuy grève ñu yëgal ñu ko sax ñu ñun jaaykat yi boobu.

état bi mooy ñu ko ñu yokk ko mais moo ñu moo ñu permettre woon pour ñu pour ñu def camp yi cent franc bi ñu ko defee clients yi commencé nañ koo jënd mais en mais dañ ne loolu arrangé wuñu farine bi lañu war a wàññi war a ñu yokk prix mburu bi ñun loolu la ñuy xeex fi ñu toll nii consommateurs yi nag moom metti na si ñoom trop metti na si ñoom trop na fan yii sóoba tey ñu ngi ñii di wóori mburu ndax mburu moom ndékki moom kenn mënut a xëy ne doo doo ndékki message bi may lancé président fekkee ne mën nañoo wàññi prix farine bi mu wàññil ñu ko wala fekke man nañoo yokal prix mburu ñu yokal ñu ko ñun ñaar yow rek leen lañ bëgg wàññi farine bi wala mu yokku ñu prix mburu mi yobu mu yóbbu farine fa mu na farine mu mënut a jël treize dans 3 mois yi ñu yokk ba 18650 xam nga lool loolu bi dafa metti kuy liggéey vingt sacs yaa ngi perte journée ay 90000 90000 boko diviser par 30 jours mu ngi jox ay 3 millions yu manki xoma 50000 ñun mu ñom bénéfice 3 millions c'est impossible kon nak liggéey bobu dafa metti moo tax ñu tëj suñu four ñun ñëpp toog di xaar état ba xam lan la ñuy wax su fekkee ne d'accord ñu si proposition yi ñu ko jox ñu jaay suñuy four rek seeti leneen emploi yi ñu am tamit ñu wutiwaat leneen ndax tamit moom moo waroon na wutal jeunes liggéey wutaloon jeunes liggéey ñu ñu wutal jeunes yi liggéey ndax boulangerie bu ne presque yaa ngi fa am ay cinquante employés ay soixante employés fi mu yooyu yëpp kenn liggéeyu tey ku liggéeyu doo fayee ko en plus sonal na population population bi tey kenn xëyu ndéeki loolu rek dafa metti kon nag loolu war nañ see sotaat bu baax a